fël Moussa Ousmane Diagne desandi ba léegi nag ci wàllub géej gi ak dembeek dikk bi ndaxte jafe-jafe yi nga xamante ni nag gaalu Aline Sitoé jaata di bàggante diggante Ndakaaru ak Sigicoor yi mu amoon eh, ci biir géej gi jafe-jafe yooyu ba léegi am na ay mbir yi ciy feeñ ndaxte nag eh, gannaaw sax suuf soose nga xamante ni gaal gi da cee joggi eh, ca jamono ji nga xamante ni mi ngi tolloon nag ci boori Jembereng li ko waral tamit yokk nañ ci ne diggante Jembereng ak dëkk bi di Nikin lañ fa tegoon nag buwe yi euh, doon leeral yoonu gaal gi nekk na tamit buwe yoo xamante ne dañ leen fekk nag ca boori tefes ga loolu tamit bokk na ci loo xamante ni tamit indi woon na euh, jafe-jafe yi nga xamante ni gaal gi am na ko kon ca yoon nga mu doon jëm euh, ca diwaanu Sigicoor ñu dem ba léegi nag ci wàllub xibaar ginnaaw nag dem beek dikk bi ci gaal yi ñu dem nag ci jokkoo gi ak Sonatel dogalub nguurub Sénégal dindi fi nag décret bi jëm ci appel ñu gisee woon nañ ne euh, dogal googu ñi fi bàyyi woon nag euh, ci appel yi bàyyi ko bitim réew daw na tax nag euh, njëgu yokk bi njëgu woote bi yokk ci téeméer boo jël juróom-benn fukk yi leneen tamit sax daan ci am ñoom daan nañu ñàkk maanaam perte lu tollook 25 pour cent président wu ASCOSEN sax moom sàkku na tamit ci nguur gi daal ci lu soxal wàllub lépp li nga xamante ni mooy gënal nekkinu askanu Sénégal mu bañ a nag comp ci lii di salaire u yi ngir nag mën a lépp li nga xamante ni tamit mi ngi koy dooleele Sonatel reportage Ndeye Aram Touré ci ndimbalu suñu natango Abdallah Ndiaye décret bi soxal woote yi di bàyyi ko bitim réew di tàbbi senegal la ñu fa xas njiitu réew mi jël dogal bu ni mel ngir dakkal bépp surtaxe ci këru Sonatel mu nekk xibaar bu neex a dégg ci ñi fay liggéeyee ñoom ñoo yàggoon a xeex boobu dogalu maître Wade tey ñu am ndam waaye terewul kuréel bi ëmb way jëfandikoo yi di artu nguur gi. gouvernement Macky Sall bi nga xam ne euh, Cheikh Tidiane mbay moo ko frère Cheikh Tidiane Mbaye moo ko jiite muy Abdoul mbay ak Macky Sall ñoom bu fekkee nee nañ dootuñ def affaire boobu dootuñ jël sur taxe yooyu te soxla nañ xaalis parce que nee nañ dañ bëgg ku faju ku feebar ñu faj la loolu xaalis la. dañ bëgg a ñi dund gi loolu xaalis la kon léegi xaalis ba muy soxla bu mu ko teg mukk ci ndodd consommateur sénégalais yi. man manuma comprendre gouvernement jël dogal dogal boobu ñu applique ko mu jur yokk si njëkk yi association consommateur toog ne loolu baax ma si consommateur yi ndax dogal bi bi ñu ko jëlee le premier octobre bi ko Sonatel appliqué njëkk yi doomu Sénégal yi nekk bitim réew. bu ñu daan woote Sénégal bu fekkee téeméeri dërëm lañ daan fay pour woo Sénégal. ba ñu appliquer dogal bi pour ñu woote bi dinañ fay téeméer ak juróom-benn fukk. ak boobu surtaxe ci wootepp waa bitim réew njëg yi ci réew yi sax kuréelu UEMOA mooy yokk ba ci ñeent fukk ak juróom-benn ci téeméer boo jot. ci kàddu ko jiital syndicat bi ëmb liggéeykat wa Sonatel nee ñu Sonatel dafa perte lu bëri ci yooyu surtaxe donte njiital asko seen mu ngi gisee safaan ba. Sonatel bi ko appliqué léegi fin avril volume bi ñu daan jot ci appel international entrant. wàññeeku na de 25 pour cent téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom wàññeeku na si li ñu daan jot comme volume wax léegi kan moo gañe du wàññi dara Sonatel ndax sonateel dafa waxoon ne suñ ko defee moom chiffre d'affaires am dina wàññeeku vingt ba 30 pour cent maanaam ñetti xaalis dina wàññeeku te loolu amul ndax lii mooy rapport annuel Sonatel Sonatel wax na ne. chiffre d'affaires am yokk na 36 milliards de francs CFA. ak bii dakkal décret tarif yi dinañ wàññeeku ci appel entrant yi waa Sonatel di sàkku ci bépp kuréelu téléphone ñu jëfee tarif yooyu dooree ko ci fukki fan ak juróom ci weeru mai di délai bu ñu war a jëfee boobu dogalu ki Sall. maa ngi woo opérateur yi muy Sonatel muy Tigo muy Expresso bu nguur gi jëlee dogal nañu rendre publique nañu wax ni ñëpp dégg leen ñu wax ko ci journaux yi wax ko ci presse bi ne à partir de bés sàngam nguur gi wàññeeku na. wàññi na ñun lii la ñuy jaayee téléphone bi suñuy partenaires yi nekk bitim réew que ñëpp xam ko. fii ak fan yu néew jéego woote bitim réew fii ci Sénégal dina delluwaat di jaar yoon fi mu ne mu ngi sàkku ci gouvernement bi mu amal audit ARTP ndax boobu kër moo doon jot bépp koppar bi doon bàyyi ko ci yooyu appel